le grand technicien de Lutte TV du muy génn écran nag bëriwul tey man rek maa ko jël kenn mosu kaa jël maa ko jël sama boy mais ba may jógal ma waxtaan ak yow nga waxtaan ak waa làmb man nag mënu ma wax de ah tey nag naa la wax loo moo ah, frère présenté wul yooyu yaay kan waaw ah, maa ngi tudd Mouhamed Dieng Mouhamed Dieng Mouhamed Dieng lan nga si Lutte TV Euh, man infographe laa. infographe monteur vidéo montage damay def ay montage vidéo. ah depuis kañ nga nekk infographe à Lutte TV. depuis deux mille deux mille seize. depuis deux mille seize. yaa ngi sa septième année. waaw boobu montage vidéo rek laa doon def. waaw boobu mënu woon montage vidéo mënu woon caméra. Uh-huh. dafa ne au final ma may jàng affaire yi. waaw ci laa dem ba mën affaire yëpp quoi. liggéey Lutte TV yomb na. ah yombul de. yombul da ngay nekk da ngay wàcc sur le terrain. Ah. chaque jour ah chaque jour da ngay wàcc sur le terrain. boo sax exiger nañu jour de repos mais doo mën def jour de repos. parce que doo a jël repos parce que da xalaat liggéey bi pour à tout moment nga dem di jël ay interview wala dara. Ah. moo tax doo mën a reposé wu des fois liggéey ba guddi sax da ngay wàcc nga xalaataat ne da war a liggéey nga demaat liggéey suma jour de repos jeudi la mais. Ah. mois bi jour yëpp laay liggéey. réalisation yomb na loolu si a wax. Euh, yomb na yombul parce que il nga def lu rafet yi dañuy bëgg gis lu ci boo xamee gars yi làmb du muy doxee. waaw yi soxla ay ralentir dañuy soxla image de rafet. waaw dañuy soxla image de. mais méttiwul nag de. mais il faut nga bëgg-bëgg la rek. mais dama ko yàgg bëgg. waaw bu ma nekkee xale laa ngi sama benn tonton di def ay montage vidéo. waaw laa après nag si la si laa gisante ak mu tijji liñ bi te ma ne léegi man foog ma dem spécialisé wu si loolu quoi loolu moo tax ma dugg si ban combat nga mos a mu jeex nga nga sa dënn vraiment réalisation parfaite ban combat la nga kontaan ah bëri na de bëri na mais mooy mosal ñu si benn ban la euh, boobu defee mu ko Lutte TV nag. waaw ah, boobu defee woo ko Lutte TV boobu fan la woon. boobu ci laa nga defee woon si Fallou Ndiaye. si Fallou Ndiaye ban journée journée Fallou Ndiaye. waaw parce que am na yoo xamante ne mënagu ma woon si réalisation. waaw si jour boobu laa damaa jàng nag avant jour boobu. waaw jour boobu laa ñëw ma ma ma ma comme boog ma tari li ma jàng quoi. waaw ma gis ne gars yi dañ doon seetaan ñu bëri dañ doon seetaan di wax naan ñu ngi gis image yi ñu ngi leer. dëgg la dëgg ah. la daal laa xam ne si boobu moom def naa liggéey. mais nag. may continuer di may continuer di jàng tamit parce que bu ma yem foofu kese. ah PPV yi yaa koy réalisé. non non lay demee am na yu ma si réalisé am na yoo xamante ne beneen structure moo ko beneen production yi ko defee quoi. mais nan lay demee réalisation PPV. comme réalisation boobu du jaar comme du jub. waaw day jaar si beneen plateforme boo xamante ne gars yi nekkuñu fi ñu ngi ay ñoo koy ñoom ñoo si ñoom lañ koy jaarale daal mais comme liggéey bu ñu def si làmb yëpp ñëpp ñu koy liggéey mais après si ginnaaw nag foofu mooy problème bi nag parce que gars yi fa la ñuy jàllalee affaire yi ay serveur gars yi dañuy fay seen xaalis ñu def dugal ko image yi la image yooyu noonu la ñuy jël boo ko directement si bi ñu des ko nag pour gars yi mën a seetaan parce que soo fayee bu koy mën a fay parce que YouTube mënoo fay di réalisateur animateur ah liggéey ak Lamine a na. ah lu tax yomb. Lamine à tout moment da lay woo. Lamine à tout moment da lay woo. Lamine da ngay dina la sax mu woo la. waaw ah. waaw maa mu ne la non jugal bi Bébé rek moo si mujj Bébé Diène. waaw bu ñu la signé contrat bi. ma woo ay foo nekk man ba man tëdd naa mu ne ma non jugal ñu dem. yombul nag de da rek. da lay wërloo. nongo daara day wër rek. bëri na dugg si kër mbër yëpp xanaa mun naa wax rek dugg naa fépp fépp dugg dem naa ba Kolda dem naa Kolda dem naa Fouta dem naa Kaolack dem naa Diourbel dem naa fépp fépp te lépp laam nga ko waral lépp laam nga ko waral ah. ak Gambie Gambie bëri bëri nag gën a moo gën a naq ni ah mbër yëpp dañuy liggéey ak ñoom de xam nga na nga xamante ne buñ tollee fenn si làmb duñ bëgg presque gis leen wala duñ bëgg gis nit ñi gis leen di nit ñi sox mais dañ leen di comprendre si loolu parce que làmb moo demee noonu quoi am na ñoo xamante ne dañ leen di wax ay bu gis ñi wala ñuy ragal ñuy ragal ne kii day gis nit bi mën na ñëw def ma lii nii mais ñoom ñëpp a yomb liggéeyal daal eh, Lutte TV nekk si ay 2 millions d'abonnés 3 millions d'abonnés loolu lan liggéey rek liggéey rek parce que maa ngi fàttaliku ba ñu doon soog a ñëw quoi ma lay bës ma ne ko pour ñu am abonné yi gars am nii du yomb mu ne ma ah boo leen liggéey di ngeen gis si liggéey bi gis nañ na affaire yi boo liggéey rek day fay boo liggéey kon kon YouTube am na xaalis am na xaalis boo liggéey nag nga ngay soog a gis boo liggéeyul doo xam ne am na xaalis te liggéey di rey sa bopp donc nag il faut nga ñàkk da nga na dara day yomb xam nga lamb mënoo toog rek sa bureau rek xam nga lii comme nga nga ñëw fii waaw lamb nga am lamb mais man technicien man damay sama chaîne day raam nan laay def mu taxaw ah sa Ibakan TV non ma day raam non raam moo nag de yaa ngi commencé dox mu ngi raam yow non yaa commencé dox non doxaguma man taraguma sax non maa ngi gis bii mi non rek mais gën a liggéey rek rek sa ñun su am na benn jour bu ñëw Lamine maa Lamine ñu ñëw sa bureau nga ne nga ne loo nga loo nga si ñun parce que ñun dañuy wàcc si terrain man gis naa la ngay wàcc si terrain bi ak démbale loolu rek la c'est tey loolu yaa ñu ko waxoon da tam loolu lañ lay waxaat boo ñëwee bay def audiovisuel tamit lay wax tamit soo terrain moom boo si nekkee rek di nga gis résultat ñu nekk si chaîne YouTube yi nga leen di dénk parce que bari na ñii lan nga leen di yokk lan nga leen di dénk ñu nekk ci chaîne YouTube yi parce que Bakkan TV Massamba TV Demba TV léegi bëri na ñëpp a ngi ñëw di root si làmb lan leen di digal ak lan leen di wax. Euh, comme bés ñuy wax rek. waaw informer vrai parce que Lutte TV noonu la tudd. parce que nit moom boo koy jox xibaar moom na nekk xibaar bu dëgg. waaw xibaar bu wóor bu wóorul rek jarul ngay teg ñun duñ teg ñun bu ñu dugal loo xamante ne sax dañ koy dugal. te baaxul. te ñu war ko dugal sax bësam ñu naan non non man ngeen dugal loo xamante ne dafa baax ci bu ko seetaanee du am benn problème moo ma gënal ngeen dugal même bu ñu si amulee da xaalis sax nekk lu nekk lu sûr rek te fiable mu nekk dëgg loolu kese loolu moom boo ko defee moom ah. doo am ak problème ak kenn parce que si dugal rek même bu nekkee une seconde la dugg xamal ne monde bi yëpp yëg nañu am na ñoo xamante ne dañuy dugg dañuy bu ñu gisee vidéo duñ ko seetaan noonu dañ koy télécharger mm-hmm. ñu ko télécharger rek nekk option boo ko supprimer ça sert beneen jour gars mën nañu ko dugal man ko xoolal vidéo bi mën maa dugaloon supprimer woon naa ko mais dafa réseaux sociaux yi daal moom si dugal moom nag si dugal lu wóor rek. Ah. ah Mohamed kontaan naa si yow. non ñoo ko bokk ñoo sama grand nga. mënu ma mënu ma wax comme nii quoi. dëgg la laa ko defoon parce que Lutte TV la woon. waaw kee moom ko def la woon. Ah. mais sama grand nga moo ma ne xaaral ma nangul loxo rek. dëgg la jërëjëf. waaw ok ñoo ngi woon ak mu ànd ak caméraman bi. ndeysaan. moom tamit. article lay bind moom koy wàcce si terrain bi. dëgg la <laughs> moom mooy Ndiaye article. Ndiaye waaw non xam nga loolu sama frère la. ndeysaan. Ndiaye ngoog. Ndiaye nuyu naa la. ah ah. Ndiaye nuyu naa la. waaw ziar naa la. naka liggéey bi. saa ji ci kaw. yomb na wala yombul. non yombul la. ah waaw mais atum moom dara yombul moom. dara yombul waaw ah, lépp jar na. mais Mouhamed moom. waaw bëgg ah. naa ko jël Iba Kane TV rek. Ah, ndax dina yomb. non non non. aywa benn ñun rek. non bàyyi ma jël ko man man damay raam ba léegi dama bëgg jël mu may ma loxo. non garaaw bàyyi ko si biir dama may loxo. non bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko. ndeysaan gaa ngi direct. merci. bàyyi ko li TV quoi. bàyyi ko li TV. yàlla seet bi gën a jëm kanam. incha allah vraiment si yéen la ñuy roy. incha allah vraiment liggéey bi rafet na. cadrage bi rafet na. film bi rafet na lépp rafet na macha allah. incha allah yàlla yàlla barkeel. amiin merci yàlla yàlla barkeel. amiin jërëjëf. ok merci mon frère.